mu jàll si ci yéen sopp ci julli dañu waxoon ne boo julli ci waxtu wa duñu sart ne faaw nga teewlu ne julli gi kat ci waxtu laa koy julli ñu ne woon tam boo dee fay bor duñu sart faaw nga teewlu ne bor laay fay ñu ne woon tam julli booy julli du aajo ngay teewlu li mu ràkk ya ñaata la na yooyu yëpp nag warutoon waaye soo ko mënee def nga luñ sopp sopp nañ boo dee julli nga bàyyi xel yàlla mi nga xam ne moom ngay jullil di jéem a teewlu ak màggam di jéem a teewlu ne ab jaabam nga bu ñàkk solo bu taxaw si kanamam di topp ndigalam booy kàbbar kàbbar alal bi nga yëkkat say loxo ba mu tollanteeg say mbagg am nañu ne ba mu tollanteeg say nopp nga wàcc loxo yi ndànk nag ànd ak wax ak allahu akbar loolu lu ñu sopp la bu yëkkati loxo yi dañoo wax ne kaw loxo yi day féete ak asamaan biir tëngli ak bi baaraam yi jëm suuf waxtu ngay kabar daal nga def noonu yëkkati loxo yi wàcce ndànk nag loxo yi bañ a ànd ak doole wàcce ko ndànk rek ànd ak wax ak allahu akbar lu ñu sopp la boo dee julli fab sa benn loxo jàpp ca ba ca des teg ko fa sëb dënn mbaa ca suuf dënn ba ñu koy tuddi alxabdu ñëpp waa Maalik dañ koy sib ci julli farata ndax daa xaw a nuru ak wéeru ak dolliku doole moo tax ñuy wax ne bu ko defoon ngir sunna mbaa daal lu tax mu def ko du ngir bëgg a wéeru yokku doole taxut deesu ko sib ndegam nag naafile moom sañes na caa wéeru moo tax dagan na kon booy naafile nga def say loxo noonu ñëpp ko alxabdu nag ak asadlu asadlu mooy wàcc loxo yi bañ koo ñëpp noonu te nun nu koy def lu ci nekk lu sax la ci sunna nañu moytu di wax naa al imaamu malik dóor ga ko àttekat ba dóor lu woon ci bi mu ñu jiyante woon moo taxoon ay loxoom mënatu ko ñëpp mu di ko wàcce ñu ànd ak moom di ko roy ca loola ba wàcce loxo yi rek door a sax waaye noonu dañoo sopp gannaaw faatiha nga teg ca saar wu mat bañ a tàmbaliw saar ak gut nga bàyyi ko rukkoo bañ a jàng aw saar mu jeex nga teg ca weneen ci yoonu maal dañuy sopp gannaaw faatiha ja nga teg ca saaru kese rek tàmbalee ci bopp saar wa yem ca fa saar wa yem bañ caa wàññi dara bañ caa yokk dara ñu sib nag nga jàng saar yi ci ràkk bu jëkk del baamuwaat jàng ko ci ràkkab ñaareel mel ne nga jàng ci ràkk bu jëkk inna anzalnaahu dellu ko jàngaat ci ràkkat ñaareel ba dañoo bëgg saar ba ngay jàng ci ràkk bu jëkk bañ a bokk saar ba ngay jàng ci ràkkat ñaareel te it saar ba ngay jàng ci ràkkat ñaareel na féete suuf ci boo tàmbale woon ca baqara topp saar yi di wàññi di ñëw mel ne daa mooñu nga jàng ci ràkk bu njëkk bi qul huwallahu ahad jàng ci ràkkab ñaareel ba iza jaa nasrullah xam nga iza jaa moo jotu ji soo tàmbaloon baqara di ñëw ba noppi nag nga mujj ko ci ràkkab ñaareel ba def qul huwallahu ci ràkkab njëkk ba loolu taamuwuñ ko li tax mu ne bi fardin daa bëgg wax ne baamu nga saar nga jàngoon ci ràkk bu njëkk ba nga daal ba jàngaat ci ràkkab ñaareel ba bu doon jullit naafila deesu ko sip bu dee jullit farata lañ koy sip benn ràkk rek nga jàng ci yaari saar bu dee ci jullit farata daañu ko sip bu dee jullit naafila moom mën ngaa boole yaari saar mbalu ko ëpp ci gannaaw faatiha nga seetlu ne bu ñu nee jàng aw saar ci gannaaw ràkk bu jëkk ak ci gannaaw rakka bu ñaareel ci mboolem julli farata yi sunna la bala ngaa am sunna sa da ngaa jëkkee fatiha ja mujje saar wa waaye boo jëkkee woon saar wa door a jàng fatiha ba tey ñu taamu rek bu fatiha ji jeexee nga baamuwaat saar wa ndax sunna sa ñëw jullit suba ak jullit tisbaar daañu sopp nga jàngal leen ci li ñu tuddee tiwaalul mufassal mooy guddi mufassal yi bu dee ci gis-gisu waa Malik moo tàmbalee ci alxujuraat ba jeexal suuratu naafihaat diggante boobu bëgg nañ boo dee julli suba mbaa tisbaar te mu yow dong nga xam ne xam nga sa bopp mën nga yàggal sam njàng wala ilimaan nga waaye takk nga ñi ànd yow di julli benn ñoom ñëpp ñoo la xamal ne la dañoo bëgg nga jàng saar yu guddi yooyu mbaa boog xam nga ci seen mbir ak nañ demee ne ñoom moo leen gënal su boobaa kon yow mi ilimaan bi kon ba tey jàngal ci saar yu guddi yooyu mu des nag boo dee jiite mbooloo moo xam ne mënoo leen a takk xam ne ci am ñu wére di am ci ñu bari soxla am ci ñu màggat néew doole kon nag da ngay jàng rek ci saar yu gàtt yi ci yooyu jamono timis ak takkusaan nag moom dañoo sopp nga jàng ci saar yu gàtt yi saar yu gàtt yi te tàmbalee ci sóoratu duha jëm ci sóoratu naasi bu dee gee nag ñu sopp nga jàng ci saar yi digg doomu digg doomu day tàmbalee xabasa ba jeexal sóoratu leyli diggante boobu moo digg doomu bu dee gee ñu sopp nga jàng ci yooyu ba tey sopp nañu ràkk bu njëkk bi di gën a yàgg ca taxawaay ba ràkkat ñaareel ba taamuñu nam yàggee ca taxawaayu ràkkat ñaareel ba ëpp gën a gudd nam yàgge woon ci taxawaayu ràkk bu njëkk ba yemonte ñoom ñaar ci yàggaayu jamono moom ràkk bu njëkk ak bu ñaareel moom dagan na waaye nag bañ kaa def moo gën yemal leen ci jamono bañ kaa def moo gën boo ko defee def nga xilaaful awla wuuteeg la gën a yey nga gën a yàggal nag jamono yi ràkkab ñaareel ba bu mu gën a yàgg nag bu njëkk ba loolu moom mooy sib ga te dañu waxoon ne yàlla moom su laa ñu ne yëngatu rek muy wax bu ko déglu ci ay noppam moom ci boppam it du ko tee doy mu ne sopp nañ nag yàllu nga xaw a xumb ba mu di ko dégg ci noppam ndax bu dee al imaamu shafi yi sax moom day sart yàllu ba kooka di ko dégg ci noppam sa ilimaan bu tolloo ci yàllu sopp nañ yow maamoom mi ngay jàng ci suuf ndax sam xel bañu nekk ci leneen bu faatiha jeexee teg ci amiin yàlla yàlla na nga nangu ñaan bu dee kenn rek kuy julli moom moo xam day yelu moo xam day biral fu mu jeexale faatiha rek ñu sopp mu wax amin jooju bu dee iliman moom buñ koy jiite bu dee yelu rek lañ ñu sopp mu wax ko waaye bu dee biral day bàyyi ña muy jiite wax ko te moom mu bañ ko wax bu dee nag ka am iliman mu di ko jiite su déggee ilimanam jàng faatiha ba faatiha ji jeex mu dégg ko ci noppam daañu sopp mu wax amin waaye dañu bañ mu di ko jéem a tolloole déggul njàngum ilimaan xëy na daa tëx mbaa daa sori muy jéem a tolloole amin ja xam ne xëy na mu wax ko fu mu dëkkut képp ko ñu ne sopp nañu mu wax amin nag bu dee ci yoonu al imaam Malik dañu sopp mu wax ko ca suuf te bañ koo yëkkati am na ci borom xam-xam yi ñu sopp booy wax amin nga yëkkati ko waaye waa Malik bokkuñu ca dañoo sopp boo dee rukkoo sa gannaaw nga bañ koo dóoxal bañ koo xuggil sa bopp itam nga bañ koo téenal bañ koo sëgal dañu wax ne rukkoo bu sëgee rek ba say téngu jegeeg say bëti woom rukkoo am na waaye dañoo sopp nag sa yaari loxo bi say téngu nga jàpp ko ci say bëti woom bu dëgër te it na nga taxawalee bëti woom ya samp te dëgër nga xam doo xaw a mel ni kuy xaw a sukkaale sopp itam boo dee rukkoo nga sabbal boole ca boo nee subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi baax na wane subhanallahi alazimi wa bihamdihi loo ci wax rek baax na boo dee sujjóot it sopp nañ nga sàbbaal waaye mu sopp nañ ñaan boole ca rukkoo moom amul ñaan waaye nag sujjóot moom dañoo bëgg nga boole sàbbaal ak ñaan boo nee subhaana rabbil aala tudd naa seelug saa borom bi gën a kawe loolu sàbbaal la boo ca tegee allahumma ghfir lii yàlla yàlla nag ma jéggal loolu ak ñaan la ba tey leneen loo bëgg a ñaan it mën nga koo ñaan ca ba ngay sujjóot ndax hadis ba dane bi nga sëggee sujjóot fi nga gën a jege sa borom kon fa la ñu gën a yaakaare loo ko ñaan mu may la ko kon boo dee sujjóot mën ngaa ñaan bu baax dañoo sopp boo dee rukkoo say conco bañ a tafu ci say poqtaan maanaam ci say wet dañoo bëgg li nga jàpp ci say woom di rukkoo na say loxo xaw a sori say poqtaan nga xaw a yàng rek yàng bu yam nga xam ne conco yi doo ko taf ci say wet say poqtaan mën naa am nag sàppe sa bañ yaatu ba doo ko mëne noonu waaye daal soo mënee xaw a yàng ca nga jàpp ci say wóom daal say përëg say conco bañ a sus rëkk ci sa wet ci sa poqtaan looloo gën wax rabbana wa lakal hamdu mbaa rabbana lakal hamdu bañ a àndaale waaw ga ak allahumma rabbana wa lakal hamdu lu ci nekk ngënee la ci julli boo dee kenn rek kuy julli daañu ko sopp ci yow ndax dañuy bëgg boo siggee ca rukkoo ba nga wax samihallahu liman hamida boo demee nag ba taxaw jonn door a wax allahumma rabbana walakal hamdu mbaa rabbana walakal hamdu mbaa rabbana lakal hamdu xaalu xiyaami jee da cee bëgg a wane ne doo def rek boo siggee ca rukkoo ba gaaw wax samihallahu liman hamida daal cay teg xaat rabbana lakal hamdu te fekk taxawa goo jonn maanaam siggi ba matagut bu dee kenn rek kuy julli bu siggee ci rukkoo ba bu tàmbalee siggi rek tàmbalee wax samihallahu liman hamida bu demee ba taxaw jonn nag door a wax allahumma rabbana walakal hamdu loolu moo ci indi xaal xiyaami ji aji roy nag mooy maamoom gannaaw bu déggee ilimaanam wax samihallahu liman hamida moom itam sopp nañu wax rabbana walakal hamdu ba allahumma rabbana walakal hamdu nga xam ne bu amee kuy jiite ak kañuy jiite kay jiite mooy wax samihallahu liman hamida muy sunna muy sunna sa maamu mu nag di wax rabbana walakal hamdu muy lañu sopp bu dee nag kenn rek kuy julli moom ñu bëgg mu boole yaar yépp wax samihallahu liman hamida muy sunna sa te bu siggee ba taxaw jonn teg ca rabbana walakal hamdu muy ngëneel la dañoo sopp jëfi julli gi moo xam sëgg la moo xam siggi la loo cay def rek boole def ga ak waxaale allahu akbar ñu àndandoo taamuñu nga sëgg ba àggal door a wax allahu akbar mbaa nga siggi ba àggal door a wax allahu akbar dañoo bëgg nga boole wax geeg jëf gi ba mu des nag boo amee ñaari raka jóg jëm ci ñetteel ba taamuñu nga tàmbalee jóg rek daldi tàmbalee wax allahu akbar dañoo bëgg nga bàyyi ba taxaw jonn door a wax nag allahu akbar boo dee sujjóot dañ ne woon lu bokk ci sab jë mënta ñàkk tegu ca fa ngay sujjóotee loola farata la woon nga teg ko bu dëgër nag te dëgëraay bañ ëpp bëgguñu na nga dëgërale jëba dëgër lool ba muy feeñ ci sa kanam bu foofa amee li ñaw sax mën laa gaañ loolu taw buñ ko waaye daal na nga ko teg ba mu dëgër mu ne degg boole ci moo xam ne ci suuf la moo xam ne taq ci suuf la ndax boo yéegoon ba ca kaw terrasse ba ndegam terrasse moom mi ngi taq ci suuf si rek sa jëmm jëpp nekk ca kaw loolu baax na wala ci kaw ab lal di ci jullee itam sujjóot nga sujjóot ca kaw lal ba dara nekku ca ndax loolu ma nga taq ci suuf bu dee jamono ji nga xam ne avion dafa am taqul ci suuf it ngay jullee ci avion ba itam dara nekku ca waaye nag dañuy sart fu ngay dëpp sëb jë boo ko ci tegee mu mën ne dégg sax waaye lu mel ne jalub wëttéen nga xam ne boo ci ne tegg sëb jë du def dégg moom boo ci sujootee du baax sopp nañu boo xawi ko ca kaw di sujoot si nga njëkk rëppil say loxo ba noppi door a wàcc say bëti woom sukk nga xam ne rëppeel loxo yi mooy jiitu sukk ak bëtiwoom ya boo jóg nag moom safaan bala dañuy bëgg bëtiwoom njëkk yëkkatiku nga mujj yëkkati loxo ya sopp nañ boo sëggee di sujjóot nga indi say loxo ba mu tolloog say nopp mbaa mu jege ko ndax loolaay tax nga mën a yàgg ci sujjóot ba te du la sonal say loxo soree ci gannaaw li gannaaw mën naa am doo mën a yàgg ci sujjóot ba na nga ca bëgg a yàggee na loxo yi ñëw kon ba tolloog nopp yi mbaa mu jege ko dañoo bëgg itam baaraami loxo yi ci yooyu jamono ñu susaloo rek jërul yaraaxal diggante baaraami loxo yi ci yooyu jamono dañoo bëgg itam cati baaraami loxo yi jëm xibla bëgguñu mu jëm ci geneen wet dañoo sopp góor bu dee sujjóot mu yàng bu baax nga xam ne biir day sori bëti woon yi su fekkee dafa mel ne ku waaf day mel ne kon biir bi day tegu ca bëti woon ya loolu tàmmuwuñ ko dañoo bëgg itam loxo yi sori bëti woon yi sori itam ay poqtaanam ca noonee mu sëggee di sujjóot nga xam ne ay përëgam day sori ñaari poqtaanam biir bi soreek lupp ya ci gàttal la mën nga ne góor moom dañoo sopp bu sëggee bay sujjóot mu yàng ay cëram rek mu yaatoo yaatu te bañ a sësale cëree mu rajj dafa safaanul jigéen jigéen dañuy sopp bu dee sujjóot cëree jegee ràbbaloo bu dee góor nag ñu sopp mu yàng bu baax benn cër bañ a jege moroom ma dañoo bëgg boo sëggee di sujjóot sa sa bopp tollu mook sa fàllara ñu bañ a tolloo nga xam ne sa fàllara moo koy féete kaw lay may loolu nag mooy fa ngay taxaw ak sa yaari ndëggu yemook fa ngay dëpp sëb jë di sujjóot bu loolu amee rek moom faaw boo sëggee sujjóot sa fàllara dana gën a yëkkatiku bopp boobee nga sëgg di ca sujjóot waaye bu fekkoon ne fa ngay dëpp sëb jë di fa sujjóot daa gën a yëkkatiku kon mën naa am boo sëggee sujjóot ca sa fàllara mel ne sa njekkikaay day féeti suuf bopp ba ca na nga sëggee di sujjóot féete ko kaw boo sëggee di sujjóot nañ ca soppe sàbbaal noonu lañ ca soppe itam ñaan niñ ko waxee woon léegi ne ci la jaam bi gën a jege boromam na addis ba waxee ne aqrabu ma yakunu xabdu min rabbihi wa huwa saajid loolu moo tax ñu sopp bu sëggee di sujjóot mu ñaanaale boole ca lu mu bëgg a ñaan rek muy mbirum àdduna muy mbirum alaxira mu ñaanal boppam ak mu ñaanal keneen muy ñaan gu jagoo muy ñaan gu matale yépp rek baax na am na kanam goo xam ne boo toogee moo xam diggante ñaari sujjóot la moo xam taaya la ak jum ca mën di doon noonu lañ sopp nga toogee ko loolu mooy sa njekkikaay bi féete càmmooñ mook tànku càmmooñ ba dañuy àgg ci suuf da ngay àggale njekkikaayu càmmoñ bi ak tànkub càmmoñ ba yépp mu àgg ci suuf bu wér te ndëggul càmmoñ ba na génne ci wetuk ndeyjoor su ko defee nag nga yëkkati nag tànkub ndeyjoor bi moom ay baaraamam samp jëm suuf dañoo sopp nga bañ a toog ci sa benn tànk nga xam ne sa njekkikaay ci boppam day àgg ca suuf tànku càmmoñ moom day tëdd ndëggoom it day tëdd tànkum ndeyjoor bi nag moom nga yëkkate ko mu tegu ci kaw bopp càmmoñ ba te ay baaraamam jëm suuf mbaa boog baaraamu dëyam nga xaw koo dëngal bii baaraamu dëy ba jëm suuf toogin woowu nag léeg-léeg day am koo xam ne am gànt ba du ko mën a def du ko fàtte sax waaye day am gànt lu ko tee mu def ko su boobaa dana bàyyi lu ñu sopp waaye dara nekku ca noonee mu toogee itam dañoo bëgg mu jël ñaari tengam teg ko ci kaw ay luppam ba noppi itam soreele ñaari lupp ñu ndegam góor la dañoo bëgg mu yàng kenam toogee ñaari lupp ya soree bu dee jigéen moom dañ ko waxee woon dañoo bëgg ay cëram rabbaloo bañ a soree dañoo bëgg boo toogee di taaya sa loxob càmmooñ moom da nga koy teg rek sa lupp doo ca bank benn baaraam doo ci yëngal benn baaraam loxob càmmooñ moom da nga koy teg rek sa lupp càmmooñ loxob ndeyjoor bi nag dañoo bëgg juróomi baaraam yi nga bank ñett ñi di ñuy wax sangaleeñ ak bu sus ci moom ñu koy wax ndombur ak bu diggutu bi ñett ñooñu ngay bank te jëmale seeni cat ci yàppu baaraamu day ba dañoo bëgg cati ñetti baaraam ñooñu nga jàppale ko ak yàppu baaraamu day ba baaraamu sànnikaay bi nag ak baaraamu day bi ñoom nga tàll leen doo ca bank benn benn baaraamu day ba itam noonu mu taalee nga koy bàyyi doo ko yëngal waaye nag baaraamu sànnikaay moom dañoo sopp nga di ko yëngal muy bàyyi ko ndeyjoor jëm càmmooñ di baagantey dem ak a dikk ba ba ngay wax asalaamaaleykum nga xam ne nga xam ne bu sa taayee jeexee ak say ñaan te ilimaan sëlmala gud te te ñu sopp rek nga di yëngal baaraam boobu muy bàyyi ko ndeyjoor jëm càmmooñ te muy nekk yëngal bu diggu doomu nga bañ a jaawale nag taaya ak boo toogee diggante ñaari sujjóot boo toogee diggante ñaari sujjóot moom sa baaraami loxoom ndeyjoor ak bu càmmooñ ñoo yemoo doo ci bank benn doo ci yëngal benn da ngay jël ñaar loxo yépp rek teg ci lupp waaye nag boo dee taaye moom dañu sopp yëngalu baaraamu sànnikaay bi noonu yëngal bu diggu doomu bàyyi ko ci ndeyjoor jëm ci càmmooñ boobu ngay sëlmal niñ ko waxee bu sa taaye jeexee ak say ñaan te ilimaan sëlmalagu nit ñu sopp rek nga wéy yow di yëngal sa baaraam boobu booy jàng arisaala dalay wax naa la dañoo wute ci yëngal gi ak bañ gi yëngal waaye jàppal ne lañ sukkandikoo mooy dañoo sopp yëngal ga te nee na yëngal googu am na jeexit lool ndax dafa am sëddiit gu taq ci baaraamu sànnikaay boobu jàpp ca xol ba nga xam ne saa yu seytaane sampee ab ñoxam ca xol ba bëgg a jax-jaxal yëngalu baaraam boobu da koy dàq xunóot baat bi ñaan lay firi foofu julli suba dañu sopp nga xunóot ca baat boo ko defee nag mu baax boo ne woon allahumma xfir lana war xam naa it ñaan nga xunóot nga waaye dañoo sopp nga defee ko baat bee nga xam ne moom lay bëgg a wax léegi du wax lépp waaye dana ko junj mooy bi nga mokkal rek di ko faral di xunóote dañoo sopp xunóot ci boppam sopp ko itam julli suba doom geneen julli amu ko ñu sopp itam nga wax ko ci suuf bañ ko biral ñu sopp itam nga def ko ci ràkkab ñaareelu suba ba gannaaw bu sam njàng jeexee te jotagoo rukkoo foofu lañ ko soppee boobu moom moo di allahumma yow buur bi inna naka nun nastainuka dana nu sàkku sa ndimbal wa nastaghfiruka te nuy sàkku sa njëgal ilaa axiri si ba ci mu jëm nga dafa xam ne miin nañ xunóot mu tàyyee andi lépp lépp ne la rek mi ngi tàmbalee ci allahumma inna nasta'inuka ba fa mu yem sopp nañ jataay ba nga xam ci ngay sëlmale bu taay ji jeexee ba nga julli ci yonte ba noppi nga ñaan nag door a sëlmal boo dee ñaan dañoo sopp la ngay ñaan nga wax ko ci suuf diñu soppee taaya nga wax ko ci suuf bañ koo biral ñaan nga ngay ñaan it noonu la mel dañoo sopp nga wax ko ci suuf dañoo sopp ñaan nga bañ a jawoo ci genn wet xanaa doon ñaan gu matale lépp lépp ñaan gi ne boo ko waxee ñaan gu ëmb lu yaatoo yaatu la ndax boo nee suñu borom lu ñëpp boole nu jéggal jéggal mboolem ñanu jur ñu ci jëkk ba ñu ca mujj jéggal mboolem ñanu jiitu te gëm la te jéggal gu nekk jéggal gu dog jéggal lu daal lañ ca taweesu ci bàkkaar lañ ca jëkke ak lan ca mujje lan ca làq ak lan ca feeñal ak sax la nga xam ne bàkkaar la boo xam nu yëgunu ko te yow xam nga ko takk ko adduna ji nu nekk may nu fi lépp lu yiw alaxira jéenu jëm may nu fa lépp lu yiw te fegal nu boobu sawara faw faw loolu ñaan gu matale matale la dañoo bëgg na ngay ñaan ñaan gu mel noonu te bañ a ñaan lenn rek baa di ko jagale ci wet mel ni yàlla loolu donc la mën a maye mbaa boo saxee ci genn ñaan nga ba mu yàgg te yàlla mayu la nga ñaaw njort ne ñaan naa ba tàyyi te mayu ñu ma nga bëgg asalaamaaleykum ji nga xam ne moom ngay noppee ci julli gi dañoo bëgg boo koy wax nga xaw a dumóoyu ci sa wet ndeyjoor ba ku la féete noonu di seen sa pegg leex dañuy wax nag ne bu dee maa moom dañu bëgg bu dee wax asalaamaaleykum ji léppi kanamam lay wëlbati bu dee nag kenn kuy julli wala muy ilimaan bay jiite moom day wax asalaamaalay jëm xibla bu desee kum nag kum jë lay xaw a dumóoyu ci wetu ndeyjooram àggalee ca kum jë xam ne ku kenn kuy julli wala kay jiite ku ca ragal ne foofee muy jullee amaana kenn romb ci kanamam bala sëlmal daa ñu sunnaal waaye fii moom sopp la fi wax sattir mii mu wax ne sopp la dañ ko daan boole ci sunna yi moom da koo boole ci sopp yi mu ne kon sopp nañ nga wut sattir ndegam yaay jiite wala yow rek yaay julli ragal ne bala ngaa sëlmal am ko romb ci sa kanam te bu la wëree ne kenn romb ci sa kanam moom jaru ko la nga def sattir nag na nekk lu laab bañ am sobe nekk lu sax ne dégg bañ di yëngatu tey bu mu nekk luy jax jaxee sam xel moo xam ci rafetaay ba la moo xam ci ñaawaay ba la wala leneen a tax mu nekk daal lu jax jaxee sam xel te lu mu sew sew na dijje ne ab xeej mbaa nga ne na dijje ne yat wu dijj lu mu gàtt gàtt na gudde ne ab xasab bi ñu sart ni faw yaa koy wuti teg fa man ngaa fekk rek lu mat satur moo xam poto la bu nekk ci biir jàkka ja mbaa garab mbaa leneen nga taxaw rek bu nekk ci kanam nga def ko satur maa moom nag ilimaan di koy jiite mooy saturam bu ñu nee nag jëmmi ilimaan ja mooy sartu yi maa moom ma kon diggante ilimaan baag sàppi su njëkk sa kenn du fa sañ a romb ndax kon da ngaa romb diggante maamoom ya ak seen ilimaan jooje nga xam ne mooy seen satir diggante ilimaan jooje ak satiram boo doon samp kenn du fa sañ a dox bu ñu nee nag suñu la romb ci kanam kay julli dañoo woote ci lan mooy oromay kay julli ba sañoo caa romb wax jiñ sukkandikoo te moo ci gën a jàppandi mooy nga wax ne fa muy taxaw ak fa muy dëpp ab jëlam rek diggante boobu mooy oromaam loola lañ wax ne sañoo caa romb waaye lu bokk te loola sañ nga caa romb doonte sax wutut satif ibnu xarafa day wax ne urumi kay julli yi wax ne sañoo caa romb sañu koo jege mooy la ko wër ba nga xamee ne ku ci yëngatu mbaa nga romb fa du la xelmati doo ko yàqal dara ci ak julleem kon ne loolu war naa mat lu tolloog ñaar fukki xasab am ñu ne day tolloog daal boo sànneew doj na saan way sore am ñu ne boo sànneeg sët na sët ngay sore am ñu ne ñaaju doon dóorante ay jees yi dañuy xaw a làngante ba ko ne mën jot sa morom jees jëm ko bëgg a dóor na diggante ba toll noona waaye say boo jàpp li njëkk a wax rek moo gën a jàpp ni mooy diggante fa mu taxaw ak fa mu dëpp ak jëm dong daal mooy ormaam ja nga xam ne moom mooy julli sañoo caa romb lu bokkut ak loola sañ nga caa romb boo fekkee kuy julli am nga feneen fa mën a jaar nga romb nag ci kanamam ci ormaam joojee kon gàddu nga bàkkaar bu réy réy waaye nag moom ma nga xam ne mooy julli itam bu fekkee mënoon naa jullee foo xam ne kenn du romb ci kanamam bu dikk jullee foo xam ne aw yoon la dañ fay baagante dama ko dikk ba tey dana am ca loola bàkkaar nga xam ne léeg-léeg ka julli ak romb ci kanamam ñoom ñëpp mën nañoo bokk am bàkkaar ndax bu fekkee ka julli foo mu jullee mënoon naa jullee feneen foo xam ne kenn du ko romb ka romb it mën naa romb feneen bañ a romb ci kanam ka julli ñoom ñëpp ñoo bokk am bàkkaar koo ci xam ne nag la nga def rek nga mën a def mënoon leneen yow doo am bàkkaar ca loola léeg-léeg sax ñëw naa kenn du ca am bàkkaar bu fekkee ne ka romb foofa dong la mën a romb ka julli it foofa rek la mën a jullee kon kenn amu ca bàkkaar kon ñoom ñëpp am bàkkaar mën naa nekk ñoom ñëpp bañ a am bakkaar mën naa nekk kenn ka am bakkaar kasees bañ koo am mën naa nekk nga xool nag ñaar ñu ne moom mën nañu romb ci kamp kay julli te duñ ca gàddu bakkaar mooy kuy wër ca kaaba ga kuy wër ca kaaba nga xam ne ñee dañuy wër kaaba ñee di julli kuy wër romb ca kamp kay julli dara nekku ca ba tey itam ku jullee feneen fu bokk ca kaaba ga am ngànt nag ni ki am bor yi di génn ci moom mu ne naa dem raxasi ko ba mu génn nag mu romb ci kanam keneen ku julli lu mel noonu dara nekku ca borom sara bi nag moom da doon teqale bu dee ca jàkk ji ci kaaba ga ak bu dee beneen jàkk bokkut ak booba dafa jëkk wax bu fekkee jàkk ji ñu jullee du jàkkay kaaba ga geneen jàkk la karoom bu yit ci kanamam nekkul di kuy julli nekkul di kuy wër kaaba ndax bu fekkee karoom bi ci kanamam daa nekkoon ci julli bëgg romb nag ndax dem ci ab yaatu yaatu wum séen ca kanam ba sattir loolaa tax mu romb ci kanam kooku di julli wala mu wër kaaba dana ko wax ci kanam waaye li mu toll daal jàppal ni mooy kiy julli fa mu nekk du jàkkay kaaba ga ki romb ci kanamu it nekkutoon ci julli nekkutoon di wër kaaba kon moom mii romb di jàll su fekkee am na feneen fu mën a jaar dana araam mu romb ci kanam kookee di julli moo xam kooka wut na satir moo xam wutu ko su fekkee nag amul fenn fu mën a aw fu may foofa ba tax mu aw foofa nag la mu def aramut dara du ko ci war moo xam koo kee doon julli wutoon na satir moo xam wutu ko woon mu tekki nag bu fekkee ne da doon julli ci jàkkay kaaba ga lay jullee kooku day su fekkee ne yow mi bëgg a romb ci kanamam nekku woon ci julli nekku woon di wër tey am nga feneen foo mën a jaar furul ci kanamam te wut na satir it boole ja kon dana araam nga romb ci kanamam waaye bu fekkee ne foofa rek nga mën a aw wala moom wututoon satir kon mën ngaa romb ca kanamam kuy wër kaaba ga foofee ca màkka ak karoon julli ba ca biir mu siin nag ca sàppe ca kanam ab yaatu yaatu bu mën a dugg ci misaal jàppal ne kër wër ca kaaba ga moom romb ci kanam ko julli moom du araam mukk ci moom du ca gàddu mukk benn bàkkaar xanaa rek bu fekkee kam fekk mu julli wutoon na satir te moom yi wër am na fu mën a aw kon daañu sib bi romb ci kanam kooki nga xam ne wut na satir ba àggal sib googu rek moo mën a am ci kaw ngay julli wut satir te moom yi wër am na fu mën a aw bu ngeen taxawaloon di julli itam sàpp nga seen ci sàpp ci kanam ab yaatu yaatu boo mën a dugg te boo cay dem faaw nga romb ci kanam kenn ci ñooy julli du tee mën ngaa romb ci kanam kookee jàll ba ca yaatu yaatu boobee nga dugg ca te doo ci amee benn bàkkaar